ñu gis ne grande mosquée bu Dakar euh, waaw loolu moom dama ciy sant yàlla rek dama ciy sant yàlla rek xam nga man lu jëm ci yàlla bañu ma ko ma ci tëj xalaatuma ko sax saaga moom tëj lay wax te xalaatuma ko sax ku ma tëj yàlla dina jëfante yow. parce que duma ma wàcc yoon lu may wax ci yoon laa koy teg grande mosquée ay góor ak juutalante nañ fa loolu ñëpp a ko yëg ñëpp a ko yëg booba laa leen ni ñu ubbi jumaa yi mais xam nga xam nga xam nga lu lu lu neexu la wax nga ubbi jumaa déglu leen li may wax bu baax déglul bu baax li may wax nga tëj juma muy néegu yàlla nga ubbi sa kër muy sa muy sa néegu sëñ mu euh, sëñ Sidi Moxtaar sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Muntaxa rek a bàyyi jumaam ca mi minel bidaaya ila nihaaya tey moom la ñuy ndokkeel tey moom la ndokkeel bañ ne bërit moo fa taxaw ñuy dem rek ba mu yàgg ñenn ñi dabi ko fekki ko ne tuñ tëjuwaay jumaa yi fekke ko mu toog ci fa mu toog rek ba mu yàgg ñeneen ubbi muy muy muy arrivage bu mujj bi bu mujj bi ñu ubbi grande mosquée ni yëngu fii xottu néeg la ñu tëj ko yeneen néeg yi di xotti néeg ñu tëj leen ñu bari ngi julli ji jumaa ñépp ngi julli ji jumaa di dem di julli ji jumaa ñépp laa wax ay xotti ay xott lañ fa fekk tiit ak kaay ma wax la Ablaye ak may wax na mu ngi ragal mu jur danger parce que danger bi mooy lan ki tàmmoon julli ci jàkka jële su jumaa yi ubbee est-ce que dina bàyyi jëmu nekkoon c'est ça est-ce que dina ko bàyyi ñëwaat ci ji ñu ubbi ji ñu tëjoon mais du ko bàyyi du ko bàyyi kon jumaa euh, euh, tëj ko gën dafa garaaw néegu yàlla wa anna al masajid wa anna al masajida wa anna al masajida lillaahi fala tadoo ma allaahi ahadan ñu tëj néegub yàlla ñaar fukki weer yàlla ne patte rek ñu tëj néegi yëpp sëñ sëñ Sidi Maxtaar eh, sëñ sëñ Muntaxa ne man mii de duma ko tëj sama maam du julli ci géej jéeri ji rek ma di ci julli duma ko def feebar duma ko tey julli mukk nañ ba wax nag lu ñu bëgg ñu ne ko kon takkal masque mën a indi ah mu takk lu mu koy wàññi ti lu man ni lu mu koy wàññi mu takk ne pat ñu ne sori mu ne sori leen ne pat rek di julli rek di rek ba ñëpp fekk ko tey alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Muntaqa jëf sëriñ Muntaxa mm-hmm. moom mi moom mi départ ca njëlbeen mm-hmm. muy daw rekk muy daw rekk muy daw rek ñuy wax rekk Touba liyeng fa Touba liyeng fa Touba lëleeng fa nangam muy daw rekk amul benn bis bu mu tëj mm-hmm. ñépp fekk nañ ko tey war nañ koo ndukk njukkal nag war nañ koo woo téléphone njukkal ko ndax li mu def moom rek a yor ndokkeel bi man yoruma dara man dama doon wax rek dama seet li jaaduwul ma wax ko seetli jaadu ma wax ko ma waxal yàlla ku mu naqari demal ci yàlla nga tëj néegu yàlla nga nangami weer nga tijji ko ñu lay laay naan way dafa am feebar bu fi amoon moo taxoon mu def lii feebar man ban feebar ban feebar kon da ngaa witti sëñ Babacar da ngaa witti ñu ñëw ne ko pes bi ñu bëggoo ñu tëj jumaa yi ba mu wees mu ne kon baa du fa jógee rey ñépp ñu jeex tey ñu ko ubbi génne leen ko yéen itam nag génne leen ko waaw génneel bu sëñ Cheikh génneel bu sëñ Abdou mu ngi ci internet bi nañu bàyyi jàkka yi nit ñi di dugg di génn yàlla mën na leen rus ba dàq feebar bi mu dem loolu sëñ Babacar waxoon ko ñu lànk ne duñu ko def lànk lànk kaare ko lànkal sëñ Babacar koy nangul koy nangul ah neex na de ñaw billaay neex na man ndax xam man nag xam naa li ma naan ñëw moom daal neex na sëñ Babacar daal neex na fekk nañ ko de aka ñu koo fekk la fay riir comme gàmmu Tiwaawan ñépp fekk nañ ko te ci moom la ñu jullee te du dañ nag du dañ du dañ abadan bëri na lu yàlla def moo gën bëri na lu yàlla def moo gën su sottee rek nga xam ne moo gën waaw ñu bàyyi xel yàlla ñu bàyyi xel yàlla nañu bàyyi xel yàlla bu dara xewatee nañu ubbi néeg ku bëgg julli boo wóoloo ku wóoluwul yem sa kër ñu bàyyi néegu yàlla yi mooy dëgg mooy dëgg ku am sa kër ubbi nga ko sa néeg yi ubbi nga leen nit ñaa ngi dugg di génn nga tëj néegu yàlla mais loolu mooy lan yow nga tëj néegu yàlla waxuñu la dara ngeen lu tax diw di ma wax nangam eh waay yow yow nga tëj néegu yàlla conséquences yi ñëwagul nit di ci wax nga naan wéy diw dafa réew lu tax muy wax ci samay wax man koo wax sa wax yaay kan yaay kan yàlla ku ko foye dootoo dara ku foye yàlla dootoo dara nga foye néegu yàlla kenn duggatu fa kenn kenn kenn kenn te kat ñëpp a ngi ci marché yi ñëpp a ngi ci oto ñëpp a ngi ci hôtel yi ñëpp a ngi ci ñëpp ñëpp a ngi ci ñëpp ñëpp a ngi ci ñëpp waaw ah seetal loolu nga am dëj mbooloo ma fa daje rek xajuñ ci juma nga ne du julli juma abada loolu dangaa defe yàlla dina ko bàyyi yàlla dina bàyyi loolu ay jaamam ñu dévier leen tere leen juma amoo benn responsabilité bu tax nga def ko nga tere leen juma ñépp bàyyi juma loolu boo yaakaaree ne day yombee nii rek grande mosquée ubbi jàkka yi ubbi kërëb kërëb du yombee noonu waxoon naa leen après corona laa xalaat mais corona jaaxaluma mais après tëj jàkk laa xalaat man tëj jàkka jaaxaluma nañ nañ toog nañu toog xool maa ko wax ñoo ko def nañ ko xool yàlla kenn du ko foye yàlla dañ koy jox cëram yow yàlla ngi la baaxal jox la cër jox la daraja jox la martaba jox la lu ne nga xëy xëy tere ay jaamam ñu dugg ci néegam di jaamu et c'est mais alhamdulillah am nañu xel ubbi xottu néeg ya ñu yoroon xottu néeg la ubbi mais fekk na ni ñaa ngi julli feneen kilifaam njaga mbay itam feebara ko fi jëlee yàlla lu ko neex lay def faalun li maa yuritu kenn tardé lu ko lu ko neex lay def kon moom mi jël jabaram teg ko ay nattu li gën rek mooy yàlla na ko yàlla teggi yàlla na ko nit ñi gis yëg ko bàyyi ko xel loolu rek moo mat ñaan nañ ko dimbale parce que nit itam bu néewee doole tàllal loxo mbooloo di tàllal loxo dafa métti dafa métti ku ko xas def nag ti joxuñ la dara mu gën a metti suñ la joxee dara it mu métti mm-hmm. waaye gannaaw pexe amul nañ def noonu rek ñëpp jàppale ko rek ku ne def ci sa doole rek ku ne def ci sa itte rek ku ne def ci rek li nga man yàlla na ko yàlla dimbale te it am naa yaakaar ne am na ñoo xam ne suñu ko déggee danañ ko jàppale am naa yaakaar waaye nag ah famille bi mbokk itam ñu jàppale ko parce que man damay wax ci grand cœur damay wax ne bëri na ku ñu indi ci télé te télé bi gënalu ko gënalu ko mais amul pexe te ci famille bi mbokk bokk ñu yor ay milliards a ngi tey bu deewoon nga gis ko wàcc nag est-ce que nag wi kii dee dana ci lekk lu ci lekk ki koy jiriñ la koy jëriñ mooy ba muy dund lañ ko jox sëñ bi bul bàyyi li ngay def waay la koy jëriñ mooy bi muy dund lañ ko jox mais bu bu xasee dee jaratul joxe jaratul dara waaw bu xasee dee jaratul dara kon nag nañ ko dimbale balaa dee ku ne na ci dugal loxo ñépp nañ ci dugal seen loxo soo amoon numéro am nga def ko ci mais amuloo numéro waaw bu fekkee am nga numéro am waaw bu dee am nga numéro nga wax ma ko ma def ko ci site yi am na nag ñu ko dul dugal am na ñoo xam ne sax tuuti la ñuy dugal mais lépp xam nañ ko ndax waxloo nit ba mu sonn nga dem teg leneen loolu du loolu du xalaat loolu du xalaat bu rafet am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour rek pour rek loolu rek <laughs> oustaz nag loolu war nga cee wax de sonal nañ ko surtout ñu oustaz nañu ci de dangay ngay waxtaan sa waxtaan bu am solo sax nga gis ñu porté ko ak leneen loo xam ne waxoo ci waaw loolu moom danga leen di bàyyeek yàlla rek yow daal bul xool rek hmm. bul xool numéro baa ngi nii ah 77 635 57 36. waaw. waaw 77 635 57 36 mooy numéro bi ñu mën a jotee ki nga xamante ni moo di sox na Mbaye. waxaatal. 77 635 30 636 57 36. waxaatal. 77 636 57 36. waxaatal. 77 636 57 36. ah léegi leer na. waaw ah, leer na nañu de. léegi numéro boobu. Uh-huh.